carte électeur bokkul ak carte d'identité carte d'identité nationale dafa am ay fonction yu mu am fonction d'identification ci nation bi avec sa descendance sa papa sa yaay et tout carte électeur dafa am fonction bu mu am fonction ponctuelle u élection boo demee ba boole ko rek am na loo bëgg a def loolu boo ko xasee ba boole bu la neexee sax nga jël ñoo xam ne amuñu nationalité sénégalaise nga utal leen ay carte pour ñu voter te doo ko mën a vérifier kon loolu wax naa ko mënuma wóolu fichier boobu wax naa parrainage li ma ci xalaat wax ko waxati ko ne leen parenage bi c'est une boîte noire black box ku ci dugal sa bopp da ngay gëmm rek ku ci jàll da nga da nga am benn da am presque chance rek mais ku ñu bëñ nga dugg ci nga nga nga jàll ci boo amul pexe doo ci jàll